waxoon arme yow laay wax yow da ngaa xool que ca gën a réew làmmañ nga koy andi muy béy. waaw wax nga ne ko naa ma yi boy yi jeex man mi yow jàmm sa jabar lan moo ko teree ñëw ci kër gi guddeeg bëccëg bu nit ñi liggéey jee yow nga jàpp xale yu jigéen ñi di leen indi fii. astafurlah yow moom ñëpp am koor ba mu des Saw yow buur kon li leen keeñ yaa e koy keeñal. keeñ lan. kamoo keeñ man ma jàpp si biir nga naa eh, ma xëy. jàpp jàpp dina keeñ soo. waaw ci dugalee ma fi fekkati. lu leer laa lay wax man faalewu ma la ko. man maa di jënd ma yow. Oh. Mm-hmm. defal soos. Mm-hmm. defal nago. Mm-hmm. ñàkk nga jom trop. defal lu la na keeñ. Ah. na kasaw. yaa gën a soof yaa gën a soof pulo yow nga bëgg mbokku de yow mbokku de mbokku de sama mbokk laa sama mbokk laa pulo yow nga rey buur